daa ma fee même riir daf may reetaanloo parce que même loolu ñuy wax même gerte gerte bi mais gerte gerte bi c'était la réponse appropriée maanaam mooy tontu bi nga xam ne ci jamono jooju mooy tontu bi war ci ñi nga xam ne dañ la ne du fi am débat politique dañ lay jaay doole loolu mooy tontu gerte gerte ba mu koy wax. waaw garte garte boobu nag tekkiwul tey ñu sosal ay nit naan da ay ngóor jigéen nga est-ce ñun wax nañ ko waxuñu ko. ay manifestations yu métti yi amoon ci réew mi taxaw défier les institutions. ah man mi di wax euh, euh, tey dem naa ci manifestation wallaahi ah dem naa ci manifestation. Hmm, sànni xeer. non sànniwuma xeer mais dem naa ci manifestation parce que dafa am koo xam ne tey bu fekkee ne moom kii boo waxee mu dégg dangay wax ak moom. du métti yéen. mais mënuñu ñu ko fay xam nga mënuñu fay suñu bor parce que ñun du ñu def dinañ fexe ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci. ñun duñu jël alalu réew mi di ko patar pataree bu boobaa lan mooy am système bi ñooy jéem a organisé wu te système bi wax naa la ko système bi boo ko jëlee quelques groupuscules lay doon foo déggee système rek ab groupuscule lay doon mais nag li ci daan trente ji wax la puissance structurelle dañuy am doole gu day nii dañuy am tentacule fu nekk doole googu loolu mooy système léegi groupuscule boobu nag bu ñu fexee ba askan wi li ëpp gis seen bopp ci lekk ci naan ci faju nga xam toujours dinañ fexe ba situation bi ñu fekk de référence bi ñu fi fekk ak Macky ñëw wane jéego bi nga xam def nañ ko ba bu ko askan wi gisee ñoom problème la ñuy am pour fay ñu tun bor moo tax duñ ñu mën a fay tun bor. doo leen instrumentaliser la justice parce que yéen ñu fàttali paye ngeen le plus lourd tribut ci wàllum justice gis nañu kaa Ba Jaxate gis nañu Abbas Fall li mu bind démb Waly Diouf Bodian kàddu yu mu yëkkati est-ce que tamit ne yéen doo nekk di instrumentaliser la justice ku wax ngeen jàpp tëj est-ce que def loolu. est-ce dinañ xool li li daaneel Macky Sall ñu jël ko di ko def pour mu daaneel ñu est xel nangu na loolu parce que ñun moo wax la ko contrairement ak ñoom ñi doon wax ay dañ fiy toog ay 30 ans ñun dinañ fi toog 50 incha allah te yooyu de manière démocratique lañ ciy toogee et à travers nos hmm. waxoon na ko mujjul nekk 12 ans la fi toog. ñoom dañoo la ñuy wax ak la ñuy def bokkul wax naa la ko fii nee naa la système de financement yi fi amoon yëpp depuis Wade ba ci Macky dara baaxu ci. te buñ ko ñemee ñoom man ñeme naa leen débat de man bokkuma ci ministre yow APR yu njëkk yi nga xam dañ ñoo ragal débat de ku woo débatté la ma ñëw